Euh, def naa ne ñoo xam ne ñii ay indépendant lañu une université qui a plus de cent quarante cinq ans xool suma parcours ne bon dañuy honorer sa parcours ci wàllu droit de l'homme ak droit des femmes ma liggéey ci des années et des années man naa mettre au défi ne fii Sénégal ëppul ku ma fi gën a défendre droit des femmes kooku kenn du ma ci kenn du ma ci indil benn benn complexe un cas précis c'est sur des cas généraux laay wax parce que du ma commenter parce que la ñu fa wax ak la ñu fa waxul fekkeewu ma ko fekkeewu ko parce que euh, du ma jël benn ka pour dire ça représente l'ensemble des cas du Sénégal non non non c'est juste un échantillon ma ci aw ma ci commentaire li may wax mooy il faut qu'il y ait une justice indépendante loolu laa ci mën a wax voilà et que kenn déniewul Adji sa le droit de de, de réclamer justice d'accord kenn déniewul aussi euh, ki euh, ñu accuser le droit de se défendre mais li ñu wax mooy dans le contexte où pour nit ñi jàpp ne fii justice libre et indépendante am na fi li ma wax moo ci nekk boo doon laaj dix sénégalais neuf virgule cinq ya euh, dañ la naan mais mais c'est la même personne qui a moins d'un an ci biir campagne électorale nga posé woon deux condition pour def débat public hmm. ak Ousmane Sonko mooy hmm. d'abord mu dem yuy di justice hmm. seetal boppam si affaire Adji Sarr ak tamit mu prononcé wu sur la Casamance lan mu léegi seen rapprochement si diggante bi dafa remplir condition yooyu wala ay circonstances moo soxna si déggoo li ma la wax damay assumer li nga xam ne moom laa doon def nekkoon dans mon rôle mu nekk dans son rôle situation évolué ba tey li nga xam ne mooy question centrale bi du ñaata député la ñu am assemblée nationale xam nga si question centrale bi sénégalais yi posé mooy lan mooy ñu dem ci ay élection dëkk bi dal dëkk bi am jàmm démocratie sénégalaise bañ a reculer ci wàllu woowu nag ànd naa ci ak moom ànd ceeg yeneen euh, sénégalais te ma wax la leen non parewuma ci loolu parce que xam nga <laughs> voilà man ku ma xam-xam ne politicien buy assumé la mm-hmm. euh, Ousmane Sonko dama nekk euh, assemblée nationale jiite liste euh, Benno Bokk Yaakaar peut-être quatre semaines avant député Benno Bokk Yaakaar yi di ma agressé ngeen fekkee ko yéen ñëpp journaliste yi. Hmm. député Pastef yi défendre ma. ma dem pour euh, ñu dem président Macky Sall laaj leen ne leen foqati leen mandat hmm. ñoom ñu refuser voter lool ñuy àddina di dox. ñu bokk F24 mais mooy recevoir ay menaces ak i saaga moom ci boppam mu euh, jël position de soutien. avant ñuy doon ay politiciens soxna Ndeye Fatou ay gor lañu. avant ñu doon politiciens ay gor lañu man gor la ci wàllu gor nag wax ma ci affaire jikko ci affaire euh, juddu gor ci affaire jikko la. Mm-hmm. voilà ku ma défendre man ci condition yoo xam ne noonu la demee. mais damay taxaw aussi vraiment euh, soo laajee soutien ma soutenir la. kooku kooku noonu laa gisee mbir alors euh, ñu ñu ñu ñu avancé madame la ministre wax ci wàllu dialogue bi parce que wax nga ko léegi élection présidentielle li ci des bareetul ay weer képp ci des. alors ñu gis ne dialogue bi déjà jàpp na nañu euh, bés bi xam naa ne ja xam nga ko muy le 30 mai. mu xaw a diviser quand même ku jéggi ah. hmm. am ba ci sax coalition bu gën a fës muy yeewi askan wi dialogue bu nga xam ne war nañu mën a waxtaanee. tolluwaayu réew mi ak fi ñu jëm surtout ngir mu gën a mën a ñoŋ muy élection présidentielle. opposition bi ñu ci ëpp ne duñ ci dem ban jàngat ngay def ci loolu. waaw mais xam nga jàmm defe naa ne ñun ñëpp ko bëgg. Mhm. parce que boo dee boo dee soxna soxna yi ñoo gën a soxla jàmm ñëpp sax. booy seet parce que ñoo yoon njaboot yi ñooy voilà euh, société bi sax dafa soxla jàmm. donc jàmm moom la ñëpp bëgg. mais euh, président Macky Sall dama jàpp ne bu fekkee ne dialogue bi lim ci doon wootee vraiment euh, amoon na ci sincère oon na ci. Mm-hmm. dina jël jéego yoo xam ne yii euh, yii lay doon. Mm-hmm. ndax li indi tension bi yëpp wax naa ko. Mm-hmm. troisième mandat bi moo indi tension yëpp. tey lu tax lu tax ku ne di wax ci sujet bi parce que booy seet mooy ndeyu mbi li ci des yëpp ay ay ay ay ay ay yoon la rek dañuy xàll yoon wi rek. yéen troisième mandat boobu mënoo leen ko waxtaanee ci dialogue wi bu dee da koo bëgg wala da koo xemmem ñu wax ko ne am na yoon yoon ay wala ay texte yu ko koy tere. waaw mais dafa am loo xam ne lii moom bu ko defoon rek ñëpp wuy si ko. mooy benn bu ne woon constitution bi ni ma leen ko waxee woon dama koy respecté wax dëgg yàlla wax na ko fu nekk. réew fo fu ne wax na ko fa. plus d'une def naa mot na cent vidéo euh, mu ne euh, lii nga xam ne mooy vraiment affaire judiciaire yeeg parce que dañu ngi wax Adji Sarr mais avant ça amoon na beneen yooyu yëpp dañuy koy teg ci suuf. ñu sax dañ koy annule parce que ni ma ko waxee 1000 milliards yaa ngi fi kenn waxu ci. voilà bi aussi bu bëggee jël temps am dina jël temps am bu bëggee accélérer day accélérer. voilà yëpp dañ koy teg de ñaareel ba ñetteel ba euh, xale yi nga xam ne jàpp nañ leen ci ay manifestation duñu ay Samba Boy kenn waxul waxu Samba Boy. Samba Boy moom boo defee lu dul la nga war a def dañ lay tëye. mais xale yi nga xam ne ñii activiste lañ ñii journaliste lañ dama leen di libérer. maanaam ñu réunir condition yooyu te li may wax du ay condition yu excessive wala je pense pas qu'il est accessible bu wootee mais ñu ñëpp ñu ñëw toog bu boobaa te discuter naka lañu ñu war a amee ay élection yu transparent yu jaar yoon euh, voilà lépp loo xam ne lii day tax démocratie sénégalaise vraiment mu continuer yoonam euh, bañ a ne ci jafe-jafe yi ñuy gis voilà boo ubbee le monde ubbi CNN ubbi tous les jours Sénégal Sénégal Sénégal Sénégal te du doon ci lu rafet Euh, kon loolu ñëpp a ciy d' accord. justement manifestation yooyu ñu gis ne ay ndaw yu nekk ci tranche yoo xam ne 15 wala moins de 15 ans en tout cas maximum 25 ans ñu ngi ciy ñàkk seen bakkan. classe politique sénégalaise bi gisuñu ay condamnation la réprobation mais aussi gisuñu sax ñu jël mbir yooyu yóbbu ko este ko en justice pour que ñu mën a xam ndax leer na ci bopp askan bi ban part de responsabilité ngeen di am ci ndaw yooyu nga xam ne dañ leen di woo ñuy génn te wàllu politique moo gën a tax waaw mais enquête li nga waxee ci rek li ñu waroon a njëkk def mooy enquête ba xam ñooñu ñu ñu naka lañ def ba ñàkk seen bakkan mm. gaw ma ne leen <laughs> faat gaw ma loolu de mm. donc dans un boo xam ne bii bu normal la li nga wax ci nekk li justice waroon a njëkk def procureur sax du laaj du xaar ñu wax ko du xaar sax ñu commenté ko day dal li ubbi enquête judiciaire mhm. mais ña ca faatu woon 2021 ba tey amul du def naa amoon na ouverture d' enquête judiciaire mais demul fenn kenn dégg ko ba tey <laughs> donc euh, looloo ci nekk les jeunes dañuy manifester aussi parce que euh, d' abord constitution dafa reconnaître ne nit ki mën naa manifester te li nga xam ne man dama ko ciy gis sax te ñu ci ngeen koy war a wax aussi yéen journalistes man dama gis ay scènes de fraternisation nga gis ay policiers yoo xam ne dañuy mujj waxtaan ak jeunes yi et cetera jeunes yi indi ndox jox leen. loolu doo ko gis naa beaucoup de pays. li mu wane mooy mooy li nga wax société bu bu bëgg jàmm la société bu bëgg harmonie. Mm-hmm. mais am na ci aussi question yoo xam ne yi boo poussé nit ñi ba ñu sës ci mur bi. mënuñoo def leneen lu dul taxaw. te mënu leen sensibiliser jeunes yi ci yeneen manière de manifester yoo xam ne du ànd ak fitna jàmmarloo di ci am seen digg ak takk der yi pour sauver des vies. mais bien sûr loolu la ñuy ñaan li ñuy mais xam nga liy gën a liy gën a yomb pour loolu am mooy bu ñu nee dañuy mani dañuy def manifestation état autorisé encadré bu état F24 def na fii une manifestation def naa ne manifestation bu mel noonu gëj naa am Sénégal déggu leen ñu ne la am na am na am na pare bu toj déggu leen ko ci nit ñi dañoo dem ñibbi kon loolu état bu ko jëloon def ko culture vraiment boo laajee ne da ngay manifester ñu encadré la parce que sa droit la bien sûr waxuñ tous les jours tous les jours mais au moins Euh, état bi reconnaître droit boobu kon bu boobaa euh, gaañu gaañu yeeg yooyu du ci am. Hmm. voilà. assemblée nationale. allez-y fa allez-y yeggaleel Fatou ci assemblée bi. je t'en prie ñëw. vas-y allez alors euh, Ndeye Fatou mi mi ngi koy wax sànq par rapport aux arrestations yow également wax nga ko ak violence bi le président de la république le jour de la Korité nee na Sénégal amul détenu politique euh, ndax yow partagé nga loolu. vous êtes du même avis que le président de la république Macky Sall. xale yi ñuy xale yi seen seen seen naataango journaliste yi lu tax ñu tëj leen du politique. xam nga c'est de la sémantique rek mooy wax waxu tubaab nga tourné ko sens bi. Mhm. mooy ki ñu arrêté pour opinion. Mhm. wala ku ñu arrêté ci koo xam ne kii day exercer ay droit muy seen naataango journaliste yi ñu tëye muy xale yi nga xam ne dañu doon manifester ñu ramasse yóbbu mais même chose la même chose la bon maintenant euh, mun nga ko tuddee détenu politique waaye mun nga ko tuddee violation des droits euh, démocratiques te loolu gën na fee am quand même lii situation bi ñu nekk man dama ko dund 2011 2012 maa ngi fi woon musuñoo yegg fii ñoo yegg fii man 1993 31 ans la am <laughs> nekk directrice de campagne de Landing Savané booba xarale yi yëpp amul benn télé moo amoon benn rajo donc am na lu loo xam ne fekkee naa ko quand ci wàllu histoire politique gu Sénégal mais fii mënu musuñu fee yegg. alors musuñu fee yegg tout à l'heure également ñu ngi wax ci dialogue bi ñu toll foo xamante ne au moins encore une fois le président de la République euh, tendre la main à l'opposition woote euh, dialogue pour que ñu toog waxtaan. Mm. ne serait que pour le parrainage bi nga xam ne bloqué nañu bari ci élection yi jot a jaar ne serait-ce que également pour l'ouverture aujourd'hui de ces élections Khalifa Sall est un acteur politique boo xam ne li fi jot a am ci période yu mujj yëpp il a été très actif ne serait-ce que pour ça est-ce que waru leen woon a dem nangu toog jàkkaarloo ak moom waxtaan mais jàkkaar toog waxtaan ak président Macky Sall kenn bañu ko xam nga lu ñuy bañ hmm. mooy li ngay gis ci lëglal yow nga gis nga gis nga gis euh, bukki yor paaka ba noppi di woo bay bi naan ko kaay ñu waxtaan président Macky Sall bu bëggee ñu waxtaan xam na nu mu ko war a defee. xam na ko politicien la boo am expérience bu tegee yëpp ci suuf rek ñu xam ne am na volonté sincère euh, de dialoguer mais man li ma gis mooy volonté de diviser l'opposition ñii dinañu dem parce que xëy na ni nga ko waxee am nañu intérêt ñii du ñu dem ma feewale leen seet euh, dégg naa kenn naan non troisième mandat sax kenn du ko fa waxtaane ku bokk ci affaire nekk ci responsable et cetera voilà ba tey yow sax est-ce que gis ngeen terme de référence yi. pas encore ah gisagu leen. alors mais donc yooyu yëpp donc yooyu yëpp président Macky dama jàpp ne du véritable dialogue lay wut. manœuvre manœuvre politique la. alors manœuvre yooyu da nga ko jiiñ le parti démocratique sénégalais mais est-ce que li sorti Barthélémy Dias bi weddiwu la euh, affaiblir même say say kàddu parce que boo nee le PDS est co-organisateur du dialogue Barthélémy Dias génn ne moom il est l'initiateur moom moo ko dox moo ko wax wax na ci ak ñi mu war a waxal. waroon na ak kàddu yi nga xam ne jiñ nga ko le parti démocratique sénégalais. soxna si tey ngaa bañ a dugg ci sama diggante sama sama diggante ak parti ah, socialiste sénégalais. bu ñu toll dañuy dugg seen diggante ak li ma la bëgg a wax parti socialiste sénégalais. le PDS oui. PDS bu leen S bi ah. lañ bokk <laughs> S bi lañ bokk. PDS am na droit ànd ak ku ko neex. Mm-hmm. parti politique la. ni ma amee droit amee sama position noonu lañ amee droit. voilà am seeni position bu ñu ma ci tuddul woon man duma ma commenté ci li ñuy def waaye nag man miñ ci tudd mais am naa fulla joo xam ne ji man boo ma tuddee dégg sama kàddu ça c'est très clair euh, yow jàpp nga ne dama lay laaj rek hmm. parce que comme comme dialogue bi ñoom ci de non non comme dañuy échanger F24 lañ la tuddoon ah oui F24 bi mais F24 beeg non F24 beeg dialogue bi hmm. mais benn la mooy li lay wax PDS ñu nga commencé ak man ca voté sama exclusion de l'Assemblée nationale. man sama problème ak Macky Sall lu ci yoonu PDS man nga ma koy expliquer. lan la ci yoonu PDS. bokk ak bañ a bokk la ci les affaires euh, Moustapha ah, Cissé Lo. voilà bon constance boobu ah, moom <laughs> la ñu moom la ñu indi booba ñoom ils étaient au pouvoir bi ils sont dans l'opposition. Mm. voilà benn ku ca la opposition def. ànd ak PDS. ànd ak ànd ak reproché la également sa implication ci procès bu Karim Wade ak doxalin bi ci li ñu jàpp ñoom. Fatou xam nga ne danga bëgga neexal waxtaan <laughs> mais lii may wax yaa ma ko gën a xam man ministre de la justice ku ma fal. Mhm. du président Macky Sall. lu ma ca defoon lu ko neexul ca ngoon sa mu dindi ma. vrai ou faux. Mhm. vrai ou faux. mais jàpp nañ ne amoon nga également sa liberté pour dire non sànq fii nga wax ne euh, bu weesoo. politicien bi dafa am ay valeurs yoo xam ne dafa nekk ci ñun. sa kilifa mën na la jox loo xamante ne yow nga xool sa ngor xool ni nga ko rappelé sànq. entre autres valeurs. pour dire no du ma ko defee nii. sama ngor a tax nag surtout ma def ci sama liggéey yow da ngay verser de l'eau dans mon moulin sama la ma def ma def ko ci li gënoon a yomb sax nga ne quoi yii lii dafa yomb lii dafa metti on ne sait ni àddina di tëddee nga daw. Mhm. dama ko def face parce que dama jàppoon sax ne mooy li am PDS bu ñu waree mere xam nga kan la ñu war a mere. Mhm. juge yi ak magistrat yi. Aminata Touré ñoo la gën a xam ne elle n'a rien à voir. bi indépendante non mais ñoom. mais si la wax ne. tous les juges musuma non attends ah doucement doucement musuma la wax ne tous les juges et tous les euh, magistrats sont corrompus kooku doo ko mës a dégg ci sama tur sama làmmiñ. d'ailleurs ki nga xam ne moom laa doon jëflanteel ndax lien entre le parquet ak euh, le ministère. muy Alioune ndaw seen def naa fii la ñu woon. bien sûr expliqué na leen. ne musuma koo jox instruction. bu bokkul ak li yoon war a def daawuma sax dugg ci seen liggéey parce que man damay respecté borom liggéey aussi. Mhm. mosuta am. kon lu ñu ma ciy tuddee li may wax ñoom xam nañ ne. li may mhm. ñoo la gën a xam ne li may wax dëgg la. sànq maa ngi lay laaj votre manière de faire de la politique quand je dis votre c'est-à-dire la classe politique aujourd'hui est-ce que aujourd'hui dépassé wuñu adversité yegg ci ci haine. muy le PDS ak Aminata Touré ku ci wax nga sentir que ne kenn gobewul sa morom. Euh, Aminata Touré est le président de la République. le président de la Macky Macky Sall et Ousmane Sonko entre autres est-ce que war nañu yegg foofu aujourd'hui man mosuma am haine envers qui que ce soit. yàlla nag moom dimbale na ma ci loolu. yàlla na ma ci yàlla continuer di musal li may am mooy position politique yu may assumer. Mhm. yoo xam ne sax souvent day metti ci man parce que nag soxna Fatou li gën a yomb mooy nga ànd ak pouvoir. Mhm. xam nga ko xam naa li gën a yomb mooy nga ànd ak pouvoir bu ma nekkul président de l' assemblée nationale président Macky Sall jox ma leneen ma toog di sañ sa di ñëw di toog di toog sama kër bu daanoo ma ñibbi Amérique wala ma defi leneen. loolu loolu li li ñuy li ñuy def ñoom. bu ma neexoon ma def ko. ndax bari nañu fa toog ñoo xam ne d'accord ñoo troisième mandat. man mais ci kaw ànd ak pouvoir boobu donc bàyyi rek ma tontu ko après ma ñëw ci yow. Mhm. donc pour man politique du haine. awma haine contre qui que ce soit kooku mën naa ko wax la main sur le cœur. contre qui que ce soit ay position nag laa am am sama fulla ak sama fayda di ko défendre mosoo maa dégg ma wax ku ña lu ñaaw nit musta am même pour delloo si la question ba may nekk en opposition avec yi Askan Wi mosu leen ma dégg su des questions personnelles jamais mosuma attaqué nit ki personnellement du ma ko mas a def mosu leen maa dégg ak fi ma jaar ak président Macky Sall ak nii ñu taxawee ma yëkkati lu ñaaw di ko di ko ko wax te duma ko mas a def te yàlla na ma ci yàlla continuer di musal mm. du ma ko def non damay def politique par conviction loolu nag <laughs> xëy na euh, day jaaxal ñu bëri mais ba ma commencé politique dafa yàgg. mais en tant que amee 14 ans. parce que bu ñu xoolee depuis 2012 ak léegi sa dem ak sa ñëw ci sa ànd ak le président Macky Sall au plan politique dafa nekk en dents de scie njëkk nga dugg nekk ci gouvernement bi nekk premier ministre génnaat maire xaw a rasu tuuti waxoon fi sax ne ci biir track bi am nañu lu ñu dajale ci xaalis muy 200 milliards. ba waa PDS na ñoom de bu dee pour le cas de Karim Wade bu un franc bu ñu versé dans le trésor amul ci finance sénégalaise yi loolu jàll ñu yóbbu la ko ñu def la au envoyé spécial nga ñëwaat après envoyé spécial conseil économique nga génnaat après nga nekkaat tête de liste à la fin ñenn ñi